mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement yéen ñuy suivre sur Kewel Info tey nag ñu ñëw fii ah ci corniche bi Kounkandé fi mu waree xaree géej gi ñu fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy champion bi nga xamante ni moom lañ seet si muy kéwél mu nekk xare boo xamante ni nag amoon na combat combat am yàqu moom ak ñàkk jariñu gannaaw ba bañ jëlee ki nga xam te ne moom mooy adversaire am Ndiar Ndem production tëgg loolu muy père Khadim Samb man nag sama caméraman ah Diafara ma jaw xoor mi nga xamante ni ndeysaan du soodu benn yoon du tàyyi benn yoon ñu fas yéene waxtaan ak champion bi dañ koy bàyyi mu nuyu ñu dugg ci waxtaan bi champion maa ngi lay nuyu. waaw Fatima maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñooy sant suñu ñaari waajur xam nga di sant Sénégal yëpp di ñaan jàmm yàgg fi waaw di. comme ni ko waxee rek di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi daal. di sant waa Réfane yëpp ak waa Medina waaw. waaw kon ni mu ko waxee rek ah di ñaan yàlla li nga xamante ne moom mooy feebar bi fi nekk muy coronavirus bi mu dem ak jàmm ak saraab ñu ñu àggale li nga xamante ne moom mooy suñu ah, suñu suñu suñu suñu liggéey ah di ko jaalewaat bu baax a baax muy suñu papa Mbaye Guèye ah di ko ñaan yàlla na suuf oyof yàlla suuf Touba oyof ci kawam. Ah, dañuy tàmbalee fi nga xamante ne mooy Père Mbaye Gueye mhm. yéen ñëpp xamoon nañ ko pour ci li nga xamante ne mooy ci jàmbaaram ci xarañte moom ak li mu doon toppee xale yi mhm. per Mbaye Gueye lan nga ñu mën a wax ci moom bala ñoo commencé waaw du ñu def leen lu dul di jaale per Mbaye Gueye kii mhm. ton per Tafa Gueye di ñaanal Père Mbaye Gueye fa mu jëm daqal ko fi mu jógee allahumma amiin Père Mbaye Guèye nag ñun xam naa li ñu mën a wax ci moom daanaka du bari quoi parce que ay combat moom moom. ñu fi quoi. Mhm. mais daal waaw taxawaayam ci lamb ku ne xam na ko parce que yàgg nay jàppale suñu grand yi. ku ci mel ni Mbaye Diouf Fass la nekkoon. Mhm. Père Mbaye Guèye ay combat am chaque da ci doon sonn. Mhm. ku ci mel ni suñu grand Sallo. ñoo ñëpp Père Mbaye Guèye moo leen taxaw ba ñu ak fi ñu war a ak. xam nga loolu daal xam nañu ko ci moom. di ko ñaanal daal yàlla yërëm ko jégal ko ay bakkaaram ko allahumma amiin waaw. Keweul très rapidement dañuy dugg ci li nga xamante nii seet nañ sa adversaire. Mhm. mais tey ñu fi nekk naan kan mooy kéwél parce que àdduna woon na képp xam nañ kan mooy Keweul. Mhm. su ma juumul sa combat ak Sunjata nga mujjee bëre. Mhm. ndax ba nga bëree mujja ci année bi nga waat ak Sunjata. ñaari combat nga enchaîné. mën ngaa ñëwaat ci komba sa combat ak mujja. parce que sànq maa ngi lay tooñ mais Keweul li mu bëgg yëpp. tey bu sañoon combat am ak moo jë taxawaat ba mën a jël revanche am. <laughs> waaw Fatima loolu lépp mën naa am. comme que ñu ngi ci làmb ji moom. Mm. bu yoon jeexul waaxu sil du jeex quoi. Mm, mm. xam nga mbër bu la daanee. nga toppaat ci ginnaawam di ko laaj day niru leneen. day niru saboté wala affaire yooyu. dañu koy ñaanal yàlla victoire bi jikkoo. kër bu nu làmb boolewaatee dañuy bëre. mais moo nekk sa xel nag de. non newul sama xel moom donc newul ci làmb ji. waaw nee nga non man moom ku ma jàmm moom doo naa ni moom. Mm-hmm. waaw loolu moom man moom ku ma jàmm doo naa ni. Uh-huh. comme que maa ngi si làmb ji mu ngi ci làmb ji. Mm-hmm. yàlla mën naa dogalaat ñu daje mais daal. Mm-hmm. baal ñu liggéey li ci sunu kanam daal bu heure bu ko yàlla dogalaatee quoi. nga bëriwaat ak ki nga xamante ne moom mooy Sunjata. mu nekkoon combat boo xamante ne ñu bëri daam foog na doon xaar. mën nañoo wax ni sax dañ cee xaw a échec parce que dañ doon xaar kéwal fa mu jugee mu ñëw wanewaat boppam. nga ñëw combat bari calcul. Mhm. et tout ñu gis daal Kéweul taxaw di bëreeg Sunjata daal mais di combat bugg ci dara mën nga see ñëwaat. waaw comme loolu Sunjata combat bi wax naa ci waxaat ci mhm. loolu daanaka sax day bëgg a niru bari wax. Mhm. mais combat bi bi ma ko jëlee sax ñu bari d'accord ñu woon pour ma jël Sunjata. waaw parce que nag palmarès yi bokkul man bu dul dara sax dama daan samay moroom. daan ci sama am ñu ma daan ci samay mag. kon Sunjata bu ma walbate ko waatee xëy na daa am nu mu demee ni ma jóge ci moot ja affaire yooyu moo taxoon ma jël ko mais loolu du combat maag Sindiata du combat sax mhm. combat nag di ko jël ci tranquille dem ba ci biir am lu la ci dab loolu moo waral ma bëree comme ma bëree noonu mhm. mais ku ma xam ku ne xam ne ni man keroog li ma bëree du sama bëre quoi. Mhm. mais yàlla baax na daal. ndax gis nga téye sa bopp te combat wax nga ko. say staff gars yi d'accord ñu woon ak amoon nañ tamit ay tuuti problème ok nit moom xam nga ne moom. nit mhm. moom mental mooy nit quoi. bu sa mental nekkul rek xam nga doo def li nga bëgg a def. Mhm. combat bi jël naa ko ci tranquille comme ni ma la wax rek. Mhm. dem naa ba ci biir nag am ay rumeur yoo xam ne nii am na fi ay wax yu sew affaire yooyu mais loolu lépp passé na fi mu ne nii lépp jàmm. waaw. combat bi loolu moo waral mu demee noonu. mais comme Sundiata man ak moom du sax làmb alxuraan. du sax làmb nga nuyul mais tamit. comme li ma la wax rek. di nga ko jël ci tranquille dem ba ci biir am lu la dal. problème yi amoo maanaam borom borom bopp moo koy xam. yee loolu moo tax keroog ma bëree noonu mais loolu du sama bëre daal man mu bëree combat bi mu mat si niil demee noonu sax man xam naa ne man. kere bëreewu ma si njata bëreewul sax mais man kere xam naa ne man bëreewu ma. Mhm. waaw nga dégg ci ay critiques yu bari ah. que lu ne dégg naa ko ci parce que mbër boo ko jëlee ñu ne waroo koo jël. Mhm. doo moroomam mhm. nga ñëw nii ak moom xam nga loolu moom buñ la mhm. critiqué yem ci sax mu neex waaw bi mooy sa sa combat ak suñu tam mooy sa ñaata ki kii bi mooy sa ñaata combat boobu mooy sama 18 combat 18 combat 18 combat waaw nga am ñaata victoire am na 13 victoire 4 défaite benn match nul ñan ñoo la daan man say défaite moo jëlaat ci mm, xam samay combat yu ndaw lal man daan di faal daan ak Baye Ndiaga mm, Baye Ndiaga bu kii bu yëmbal bu ndaama boobu rek ak Maguette Seck ak Modou Dia. macha allah waaw tey ndaanaan ñoo la daanaan. tey mën na sa li ma ma sa yoo xamante ni tey ñi nga bëreel yaa leen daan ñoo te ni ñi ngi lëmbee ci làmb ji. ñu ngi lëmbee làmb. bari na. ku ci mel ni qualifié numéro 2 bëri na ma moom. daan bu caaroy bu bëreeg général. daan naa qualifié numéro 2. daan naa uh, Mama Lamine. Mama Lamine. Mama Lamine waaw. Mama Lamine men. Mama Lamine bu Lamsaar men. Tarkinda Tarkinda bu ñuul bi waaw. ba foo leen bëree ñaar. waay yow lii lan la. Mama Lamine waaw. Ah, ah Mama Lamine. mais Mama du dara adversaire la comme gars rek. ah mais boobu boobu Mama Lamine ak bii du de Mama Lamine bii dafa. ah kewel boobu ak bii du du benn. yii Mama bii Tarkinda bu mag bi de war a bëri ah. déggoo li ma ñooñu daan naa leen ay champion qualifié Mama Lamine. Mhm. Kane Thérèse appartement mhm. 221. ii Diaw 2 Ndongolo Laay Bey. ñooñu ñëpp dama leen a daan sowal mbin maak. Mhm. mënuma lim ñëpp daal. macha allah ma ay combat rek laa bëri de. waaw combat yi nga xamante ni mooy sama combat yi soog yeeg dama koo gagné. ñaare chaque jour ma combat bi ma war a ñàkk mooy combat bi ma jël ñëpp ne ma Kewel yaa mën waa ji mhm. boobu dama ko yomb a sa combat ak Modja nag yaa mën Modja nag minute xam na ne sama combat ak sax dañu mën a yaa ko mën yaa loo wax ni say njege ñaare ñoo ko wax a kii jaw say njege ñaare ñoo ko wax samay jege ñaale dañu maa xam ok teel micro bi samay jege ñaale xam nañu ma xam ñoom ñoo na la yow ñoo la lor déggoo li ma la wax. ñoo la lor kay ci combat ak moo jëkkoon. xoolal samay combat naa la chaque jour ma ñil may daan toujours ma. Hmm. maa leen mën. man chaque jour ma ki nga xamante ni maa ko mën moo ma yomba daan. yow kon moo jë yow yaa ko man mu daan la. moo jë waay. te moo jë foo ko mënee yow moo jë dóor la nga gëlëm. <laughs> waaw loolu lépp mën naa am. xeex yow wan bu bëreeg yow bëre bu bu neex. xam nga nit tey jii buñ la jëlee ne la yaa mën nit. xam nga sa sawara ak sa lépp mën nga koo wàññi. Mm. mais man gaynde laa bés boo ma jëlee combat ñu ne ma ki nga jël adversaire la moo la moon mm. boroom tey mu dee. waaw tey mu dee bu ñu mënee tey nga dee. Mm. boroom tey mu dee. borom tey dee. waaw. la daal. sama tey mu dee la <laughs> ko waay man daal li ma la mën a xamal mooy. Ah. combat yi ma ñàkk dañ laa jekk mystiquement mais sérieusement sa combat boobu dañ laa jekkoon mystiquement dañuy waxtaan quoi combat boobu. dañ laa jékkoon musique. non non jékku ci musique man kenn mënu maa jékku ci musique man dama ami mbokk. Hmm. dama am ñu may kilifa yu may ñaanal. Hmm. man benn mbër mënu maa jékku ci musique. yow yaa ngi doon gis. gis lan sa combat ak Modou Dia yaa ngi doon gis. maa ngi gis normal nga naan kon ndoxu géej bu ñu pour jox pour nga sëlwu nag. non ndoxu géej kenn andiwu ko fa de gars yi wax loolu rek ndoxu géej amu fa de. ok waaw. Uh-huh. mais dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy sa combat ak ñàkk jariñu. Mm-hmm. Père Khadim Samba ñu koy nuyuwaat au passage nongoloo fàtte naa ko ñu ngi koy nuyu au passage ah, borom États-Unis ah, parce que ñëpp ndeysaan yéene nañ ko ko di ko wax nag ah, moo xam li mu bëgg foofu yàlla na ko fa yàlla defal jàmm ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, sa combat ak ñàkk jariñu pourquoi ñàkk jariñu parce que dañoo seeti sa adversaire mu ne fii mu jugee mooy luñ ko suspendroon amul ay adversaire ñoom ñëpp dañ koy daw cest à ñàkk combat moom moo tax mu jël la mhm. sa combat ak ñàkk jariñu yow tamit combat boobu na la def ba taxaw combat bi ni mu def ba taxaw Père Khadim moo bëgg moo bëgg a teg lamb rek. Mhm. waaw. Mhm. waxtaan ak man man ma d'accord. tel micro bi. xam waxtaan ak man ma d'accord. Mhm. ma ne ko man moom amul adversaire buy ne ci lamb boo xamante ni seeti nañu ko ma koy ragal wala dara ku ñëw baax na. ñàkk nag maa ngi koy dégg muy wax di réyu lamiñ di wax. naan ay dama ko topp ay dama toppaate affaire yooyu. yaa ngi dégg. man lijjantiwu ko bëgguma a bi rek moom sax. moom soxlawuma ko sama bot jël na moom ñàkk jëriñu ah yow ñàkk def fi ñaata combat est-ce que defu 19 jëriñu 10 xaw ma ñaata combat 20 combat la fi def xaw ma 19 combat waaw daan ay ndaanaan teel daan ah, daanul laay a daan ñàkk jëriñu daan laay Pythagore laay Pythagore ko daan laay Pythagore nan bu yàgg daan nongoloo ndongolo daan ko. daan Pape Mbaye ndongolo nan la ko eh, daane. Pape Mbaye ko daan de. ah Pape Mbaye ko daan. ah Pape Mbaye ko daan. waaw ah, ah après mu daan kat claf bi gis ni mu def. déglu ma ñàkk jëriñu dañuy ah. waxtaan tempo ah. tempo. ñàkk jëriñu nee ci dynamique la jóge ñàkk jëriñu yan dynamique la jóge. ah mos naa nekk meilleure révélation nag daaw. léegi man mosuma nekk meilleure révélation. mais mais mais ñàkk jëriñu yow bëreeg ay ndaanaan ngay naan ko ay diwo ko daan diwo ko daan mais moom lañ jox victoire. man dama koo déglu. Mm-hmm. Hmm. da ngay wax ak moom moom ngay tontu moom ngay waxal. koy ñàkk yow laay waxal jóge woo ci yenn dynamique. Hmm. ci gala nga jóge Pape Mbaye de la daan doomu daangu door la nga daanu. yaa ngi ah. dégg ñàkk de final. dem final boobu dem final ab dara. du dem final dara yaa ko topp mu def erreur mu daan ko. mu ñëw daan dongolo Pape mbay de koo daan ñu door ko mu daanu mu ñëw jël lay Pythagore dañu ko daan sax arbitre yee ko jàppale. Hmm. mu jëlaat Alioune Seye numéro 2 war a bere xam ne combat bi baaxut mu yebal kenn ci ay gaayam ñu door Alioune Seye yàq lam ji moom ñàq jëriñu ñàq leen yebal daa xam ne combat bi baaxul mu yàq ko door Alioune Seye lam ji yàqu moom keroog xel yu miti la gën a stade bi ñu naan ay dynamique yan dynamique la jógee benn victoire la fi am ci diggante boobu bi ñu bi ko doomu daangu daanee laay pétagore la fi bereel combat boobu du combat dara. Hmm. moom la ñu daan sax. Hmm. waaw mais moom nee na lu mu wax nee na yow balance moo la boole moom parce que nee na ñaar sax waraloon bëri quoi. ñàkk jëriñu li ba may moo ma jiitu ci lamb. nee na moo yaa ko mag. déglu rek moo ma jiitu ci lamb. acca expliqué li ma doon fayu ci lamb ku ko fay te man mi mu bëre la tax. loo yor nii. yàlla mi nu tim xam na ko. waaw looloo ko loolu. tax teel micro bi. looloo tax mu fuuy di wax naan ay kewel del ma lii ak nii man ñàkk jëriñu li ji soxlawu ma sax a bëre moom. Hmm, mais nee na combat bii de da ngaa mooy dégg nga ko sax nee da ngaa waaw damaa mooy. bu yoon jeexul waaxu sil du jeex. Hmm. gis nga la set bi passé. Hmm. ba le set ba lay ñëwaat déwén. Ah. fu nu bëree ci diggante bi dama koy daan. foo ko teg. su ma ko teg sama doole ak sama ngëm-ngëm. kon da bëgg wax yow ñaq yaa ko dàq bëre yaa ko ëpp doole. maa ko dàq bëre maa ko ëpp doole maa ko mën ëpp ko fit. i waaw ñaq am na fit de am na sañ-sañ de. barke alxuraanu karim lu muy jaay maa ko ëppale. mais est-ce que yaa ngi seetaan ñaq. waaye ñaq maay ñaq ma dóobul tax ma waaye ñaq jëriñu xam naa ko bu baax waaye ñaq du dara wax la moon rek du dërëm. ah nekk ci nekk na ci état de état de forme. état de forme boo xamante nii da ngaa jël combat yooyu ba mel ni aw kii. ñàkk mën a yooyu déglu ma rek. Ah. ñun xam nañu lépp ay nant lañu. Ah. ñàkk jëriñu combat bi bi mu koy jël bi mu koy jël fekku ko ci dara. Ah. man gis naa ko bu baax ay basiri na ko jeek yooyu na ko kewel fi mu ne nii eh, yaa moon jëlal combat bi mu dem jël ay siroom naan ko ñëw taxaw ñun xam nañu lépp na liggéey. da nga bëggoon bu baax. militaire yi laa nekk barke alxuraan bu nu béree dama koy duma bu nu xeexee bu nu xeexee mag. nee wuli doo boole franchement dégg nga ko sax. ne ñaar lay boole ci benn tàkkusaan déggoo ko. wuli doo soxlawul ñax jëriñu na na ko woo téléphone wuli doo may ko xaalis wuli doo soxlawul béréer mu ngi États-Unis. Euh. combat bi xaalis bu bari lan ma si hmm. ah, da ngay toppaate rek. ñàkk kay man ma mais mais mais nu mu demee noonu. kuy toppaate ku la ëpp kase nu mu lay toppee man ma ëpp ko kase fuuf mu jiitu ma ci la ma ëpp kase ma koy topp. mais nee yaa ko mag tamit kiiwul. ñax jëriñu bu doonoonu béy taawloo ma mu naan maa ko mag loolu loolu loolu ay wax la rek day neexal rek. ah mais neen yaa ko magee deux ans ah jaw neen yaa ko magee ñaari at. koo xamul ab judoom xamoo dara am naa moo la magee. non ñàkk dafa dafa gis sa carte d'identité. sama carte d'identité moom mosu. non ñàkk gis na ko. yàlla mi nu tiim xam na ne mosu. ah nee na moo la magee deux ans nee na yaa ko magee deux ans. sama carte d'identité man mi ko yor sax pour ma gis ko problème la ba ko ñàkk jëriñu. mais fa nan la xamee ne yaa ko magee deux ans. est-ce que ah déger fit ak ñeme yàlla de ku mu neex wax lu la neex waaye bu doonoon béy moon na maa taaw lool. rek laa ci am lu ma ci wax. waaw mais sérieusement est ce que réellement na xam ndax combat ñàkk jariñu. combat tay mu dee yëpp du ko réussir. waaye ban combat tay mu dee. yi mu am yëpp ñaan ñàkk tay mu dee tay mu dee. kan la fi jël tay mu dee. ah. combat tay mu dee mu mu dee kii laa dégg muy wax. Moussa Balla Gaye loolu tay mu dee la loolu mu dee. laay Pythagore mu dee. moom la ñu daan. may nan lañ ko daal dañ njaqalañ jox kii sëñ Bamba moom lañ daan ah. man de moom la moom laa jox defet mais kon li mu naan kon sa combat bi combat bi lii rek moo leen boole année blanche rek moo leen boole kon yow xam nga ne kon combat bi fonk na ko sérieusement déggoo li ma la wax ah. ñàkk jëriñu nee na combat bi année blanche nu boole mm-hmm. waaye mënoo jël mber ba pare mm-hmm. ne année blanche boole maa ko mën lii mm-hmm. milaas sa def ko ci lépp ñàkk jëriñu boo ko fagoon desewut dara ngir boog maa daan kese te ne moomu mën war xam nga ne da lay wax lu ko neex moom boo ko yeewoon muy nelaw sax nga ne ko yaamoon kewel dina la ne non non wax la rek. Mhm. daan ñàkk jariñu fan la la mën a yóbbu. daan ñàkk jariñu ma yeneen mbër yi a yóbbu rek. Mhm, mais ko sax adversaire boo xam ne dama koy daan mu may kii wala leen ñax bu ma ko daanoon tey jii bu bet setee maay waat fii may entraîné. kon boo ko daan da ngaa wax dara yóbbu fenn. non xam nga nit moom yàlla li mu war a def moom boo ko tuutalee sax mën na laa mere xam nga tey mën naa ne bu ma ko daanee du ma yóbbu fenn yàlla mere ma neen comme bu ko daanee du ko ah. yóbbu fenn ah. naa bàyyi mu daan ko kon mm. su ma ko daanee am na fu mu ma yóbbu mm. mais moom nawloowu ko ndax nawloo woo ko naaw defuma ko sax mbër ndax lan dafa bari wax ñàkk defu fi dara. ah ñàkk def na fi dara nag. defu ku bëri 19 combats xam nga 20 combats def fi dara. ñàkk 19 combats la bëre man maa ko gën a tàngi combat fu. ah mais ñàkk combat am tàng na de ay combat moom dafa tàng nag kéwal nag. ñàkk champion la de. bilaay walaay maa ko gën a tàngi combat. Hmm. waaw. mais est-ce que tamit loolu tamit euh, comme ni nga ko ñàkk ñàkk respecté du am tamit parce que ñàkk en général bëri ko respecté wul yëpp da leen a daan. déggoo li ma la wax combat bi man bu arbitre soufflé dinaa ko jox cër bi mu moom bi mu mat sëkk. bu yaakaaree ne damay wax nii di asaaloo di lii bu arbitre soufflé dinaa ko xool def li ma war. du ko may dara. barke alxuraan. li ma ci war lépp dinaa ko def maa ngi entraîné maa liggéey. amut leen lu ma ëppale ëppale wu may mbokk ëppale wu ma dara. te nawloowu ma ko. waaw seen 100 pour cent bawol bi instant bi moom xew moom 100 pour cent bi lu mu demee est ce yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw 100 pour cent Bawol bi kay nice. ñu ngi jàppalante ñu ngi andi contact écrit yëpp. Mhm. ñoo tafatinin ay mbëri Bawol yëpp daal. Mhm. mais yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. maa ngi ciy gis sama bopp parce que nit moom amul lu dul boo amee sa bés. ñëpp mhm. ñëw jàpp ci. loolu rek moom boo ci gis sa bopp moom dootoo ko gis fenn moom. waaw. nan nga gisee instant bi làmb ndax gis nañ làmb affaire bi tar na trop. surtout si yéen mbëri ndaw yi. Mhm. Euh, démb gis nañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy mobile de Jaw euh, Fara association bi nu mu tudd association des jeunes lutteurs. Mhm. def nañ sorti ñu gis association ban ban tamit association bi nga xamante ni Gris Bordeaux moom moo ko jiite kéwal ya ban association nga bokk ba pare. man moom bokkaguma ci benn association. bokkoo ci benn association. mais nan ko ko gisee instant bi crachante yi parce que làmb gars yi naan jubóowuñu làmb ànduñu ndax gis nañ fan yi combat yi nga xam ne ñoo amoon. Mhm. ñu war a bëree yi bëree wuñu ñu ne problème de sécurité ak Covid bi tëj làmb ji wax ji bari kenn du ko rek di waxee fii ñi ne làmb ànduñu mais ban gis-gis nga ci am instant non làmb moom ànd nañu moom man li ma li ma jàpp mooy xëy na. Mhm. ñi nga xamante ni ñoom la ñu jiital ci kaw. Mhm. xëy na ñoom ñoo ñoo desee boog làmb ko te itam xama mbër yi ñoom mbër yi dañ leen a war a respecté. parce que bu ñu amee tey jii ci mbër yi la ñuy amee mbër yi ñooy bëre. ñu ci am seen santaas di ci am liñ ci war a am kon dañoo war a jox mbër yi seen cër quoi respecté leen normal comme yeneen sport yi. Mm. parce que boo demee ci football bi ak basket bi yëpp ñi jiite affaire yi dañoo respecté euh, leader yi. Mm. kon waa làmb ji dañoo war a respecté mbër yi xam ne ñoom ay doomu aadama lañ ay nit lañu. Mm. dañuy liggéey quoi. ñu jàppalante te respecté làmb ji normal jox gaa yi seen cër. waaw dana jàpp di gaa yi jox ñu leen seen cër. non bu nu bu ñu leen joxoon cër bi ñu leen war a jox dinañu bàyyi combat dem ba des ay cinq jours. ay ah, ay ay benn jour. Hmm. ñu ñu ñu arrêté lamb ji Bour Sine mu ngi waroon a bëre benn dimanche bet ci hmm. suba gi la ñu ko wone ko doo bëre. Hmm. xam comme gaa yi ne ni noonu ay Papa Sow in Balla Gaye in man maay waroon a bëral set bi comme mm-hmm. noonu la demee mm-hmm. kon bu ñu respecté woon wala itam jox na suñu cër dinañ ñu bàyyi ba ñu bëre ba pare ñu jooma xool yeneen kii ñuy def mm-hmm. man loolu laa gis quoi ah kon daal làmb dañ leen a joxu cër loolu moo tax daal lu ñuy xaw a tuutal quoi ah. moom mooy loolu ay ay noobul lañu ci ah. dëkk bi la ñu dëkk waaw ah. noo gisee présence su VIP yi ban ci présence su VIP yi ci làmb mbër yu mag yi noo gisee seen taxawaay ci làmb taxawaay bu mel nan mbëri mag yi parce que ñu ngi ne mbëri mag yi yéen instant jàppale wuñ leen loolu la mbëri ndaw wax kenn dañoo war a génn kaasal leen mais yow lan nga ko gisee yow non yu mag ñu ngi kaas pourtant ñu ngi kaas de gars yi moom chaque jour ci kaas la ñu de nag wax rek booy kaas te kaas le wuñu la moom li ngay kaas lu mën a tooy dëgg la looloo tax mais gars yi ñu ngi kaas normal waaw sorte Gris Bordeaux noo ko gisee non boobu nag seetaanagu ma ko quoi. ah seetaanagoo ko seetaanagu ko waaw. Mhm. kon instant bi daal kon yow li nga jàpp que ni gars yi daal dañ leen a joxul seen cër. looloo tax daal waaw gars xaw a ginaawal tuuti moom. Mhm. waaw keroog am na benn kii bu ñu def waa CNG de la lutte. Mhm. pour mbëri ñàkku pour ñu mën a li nga ni ne tijji làmb ji loolu noo ko gisee. ah mais itam combat boo koy jël. te contrat bi waxuñu ne boo ñekkul doo bëre itam loolu war nañu koo seetaat quoi. tey ma ñekk la forcé it wax dëgg yàlla loolu moom. amut fenn. mbër daa mel da ngaa ragal piqûre yi de. non du question ragal piqûre moom méttiwul du ah. dara mais itam xam nga hmm. dem boor a bëre ñu arrêté ko. Ah. boo ñu naan dina bëre dina am ak du am ñu ne bu ñu ñekku du ñu hmm. kon daa mel ni affaire bi dañoo mel lu bëgg a forcer nit tey ngeen ñekku. genre chantage la ko genre chantage. te contrat bi tey nga ñekku forcer bokku ji. kon nit boo ko bëggee defloo dara da koy koy taan wala nga kii ko. Hmm. ñoom ñu nu bëgg a ñekkuloo gënuñu noo bëgg a dun ñun ñëpp a bëgg a dun hmm. ku a ñekku nañ la bàyyi nga ñekku ku bëgg da ñekku ñu bàyyi la ku bëggul la kay ah mais dégg nga boo leen ñàkkul kii doon parce que ah. itam nit sa liggéey rek moom ci la la kii di dale ah. tey jii man mi su ma waroon a béree xam hmm. nga def sama lépp ci làmb ji ñu ne ma boo ñekkul dinaa din duma béree hmm. dinaa ñekku te dee su ma dee dee bu ma du dee dun mais na ñekku mais moom jéggénalu ma moom <laughs> ñàkkuwoo. non fi mu ne moom ñekku ma moom. looy xaar. non man moom wax dëgg bu ma la waxee dëgg rek. Mm-hmm. ñekk yi moom xaw ma lu ci ne xaw ma ci len mais man ñekku moom gënalu ma moom. ma sañoon bu ma mënoon a ñàkk a ñekku daal moo <laughs> ma mi ngi may rey quoi non mi ngi may <laughs> <laughs> voilà dégg di daal da ngaa jàpp ne dañ leen dañ leen a bëgg a forcer ñàkk yi daal mais ñàkk yi nekk dañoo waroon a bëgg a waroo a bàyyi gars yi kenn ku nekk def lu dal daal voilà dañoo teg ñekk nii hmm. ne ku bëgg a ñekku hmm. nga ñekku ku bëgg da ñekku <laughs> jaw de ah. loolu lañu ñu waroon a def mais nga ñekku wala doo bére loolu di nga ñekku te du la neex <laughs> mbër ñaata nga investir sa combat ndax dégg nañ sa ah, nee ay millions ñaata nga investir si combat bi donte ah. combat bi ñëwagul woon mais jotoon jotoon ngaa investir. investir comme lan li ma financé. waaw jë waaw jotoon nga. combat bu des teel micro bi. combat bu des une semaine kay xam nga ne. Mhm. loo yor def nga ko ci. combat bi ci xayma koom ñaata. bari na. Hmm. ñaq moom doon ma nag ay millions nga def si ñaq. kan doon na ma nag ay millions comme que nee nga nawloo woo ko doon na ma ay million nga ci def. déggoo li ma la wax de ah. du question kat ci ñaq laay jël defi million de li hmm. may def ci sama bopp laa koy def de ah mais mais ñaq defu ma ci moom dara defoo si ñaq dara non non man li may def lépp ci man la jëm sama eh, financement la ah waaw ñaar nga investir kon yow ñaq Sëriñ Tuubaa Mbakke bari na li ñu ma avançoon ah def naa ko ci est-ce que mat na ay million op na ko déggoo li ma la wax sama mag yi ne Europe ak gars yi may jàppale li ñu ma jox ci xaalis man hmm. xaw ma nu mu toll ay million la lépp def naa ko ci côté mystiquement côté mystiquement côté sa préparation li ngay entraîner li ngay lekk ak fi ngay dem ak lépp sarax yeeg lépp. Mm. loolu lépp ci lay gën quoi mais du lépp doo ko def ci mystique. Mm. lam xam nga dafa yaatu ginnaaw. Mm. waaw xaay bu bari laa def moo tax fi mu ne nii amatul. mooy loolu da am problème parce que ñu ngi nii. liggéeyuñu dara dañoo war na bëre jot suñu reliquat sax am luñ ci fay faj mais dara. fi mu ne nii yoratuñu dara. mais pa bi mu ko annulé nii nii après ba mu koy annulé woon na leen téléphone. non man moom woowuñu ma sax sama menaceur sax laa woo laaj ko ne ko ah. sama menaceur laa woo ne ko gars yi li may dégg ñuy wax affaire yooyu mu ne ma xaaral ba suba bu ma ci amee lu leer naa la wax hmm. léegi bet set après mu woo ma neel ma gars yi mujjee nañu andi la lam ji hmm. te boobu damaa jóge entraînement xaaral ma ñëw defar ba mu baax pour waajal ko bi hmm. <laughs> li des uh-huh. ma ñëw ñu ne ma annulé nañu ko ko xam nga loolu day dam sa moral daal ñaata séance nga doon def par man des fois ma def deux séances des fois ma def trois séances. te dégg naa da nga jëloon entraîneur bu lay ja kii jàngal boxe. non man moom boxe moom ku ma xam-xam ne moom yàgg naa moom. mais est-ce que ñeme woon ngaa xeex ak kii tamit. ñaq ñaq. ñeme na maa xeex jël entraîneur bu lay jàngal boxe rien que pour kii. pour ñaq déggoo li la wax lépp laa jël entraîneur boxe entraîneur physique. Hmm. musculation lépp. lépp laa am ci combat bi nee naa la moom xooluma ko ci dara lu mu ciy jaay maa ko ko ëppale. kon daam loo doon wane daal si ñaq. daam loo a wane. instant bi mu toll nii sax boo ci nee di wax di lii ak nii sax day mel ni combat bi ni mu amul a tax ngay wax ak yooyu mais daal. Mm. yàlla na nu yàlla may tal ak fekke mm-hmm. ba ñu jàppaat combat bi nga xool. Mm. ñu xam ku nekk li ngay wax fan la féete quoi. Mm. mais en tout cas combat bi bëggoon naa ko trop. waaw bu ko bëggee benn bëgg naa ko fukk. parce que bu dul dara sax maanaam wax ji moom wax moom moo xam a bari quoi looloo taxoon ma respecté combat bi mais du dara. Uh-huh. waaw ani soxna non soxna si moom sore nañu mu ngi bawal depuis boobu ba léegi mu ngi mu ngi mu ngi combat ba tey depuis combat ba léegi mu ngi malel fale gars yi ñëw da nga koo tëbal quoi dama koo tëbal yàgg na waay yow <laughs> tabaski gi sax mooy loolu gisante sax defuñu ko dama jaar gale nii rek hmm. saalee gën le ko waat dem sama yoon ah. waaw lépp lépp ci combat bi rek kon combat bi respecté war nga ko de déggoo li ma la bu ko respecté benn fukk maa ko gën a respecté c'est que nag hmm. gën a bari wante wax mën naa am hmm. waaw. Mm. loolu moo ci am mais maa ko gën a bokk téeméeri yoon. Mm-hmm. waaw tey boo amoon kàddu yoo koy jox yan kàddu nga koy dénk. ñax mi ngi nii jàkkaarloo ak yow ndax moom am na kàddu yu mu la dénk. aw ma kàddu yu ma ko waaye ñax dénkuma la yenn kàddu yu dut yoo yu dut combat bi yàlla def ñu jàppaat ko ma jàpp la duma la daal la loolu rek laa lay dénk. xam nga bawol bu baax nag xam nga bawol de dofoo wax nag maanaam yu ak dofa ko moom. la nga fa jële woon lu ko gën a méttee la fay xaar lu leer laa la wax. non booy Bawol mënu koo daan ngeen ñëwaat kii nag. bàyyi leen kii waaw yow bu nu xesee yor sa sarax jeex na. ah kon da ngeen yor saraxu ñàkk. waaw yow kooku yàgg na ko ba ñu ko dugalee fa ñu ko dugal dootu fa génn. même bu ma paree ci moom sax day jël George Bush mi. George Bush mi nga koy jox nii da koy jël mu defaralaat ko. ah waaw. <laughs> amaat mbégte contentement amaat mbégte ah. dalal ko ne naa leen ñoom ñun ak ñoom ñoo far. dañuy jël suñu téléphone woo leen rek ñu ne ñu ñëw leen ñu nekk tamit mbër yu baax yu disponible moom Kéwel moom tamit suñu nit la suñu xarit la parce que dama ko woo ma jaru nga may woo heure boo ñëwee baax na mu nekk koo xam te moom dañ koy ñaanal yàlla li des ci carrière am yàlla si yàlla defal jàmm ah. ndax ñoom ñu baax lañ franchement li may wax rek nee naa leen man moom ku ma xool ci kenn rek danga may mere ndax ñoom ñëpp sumay xarit lañ macha allah te kenn ku nekk am nak moom relation waaw mbëri daal yàlla seen jàmm yàgg sama góor yi lan ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy xam di wax sama supporters yi ne leen rek amul découragé de ñun ñu ngi ci amul bàyyi. Mhm. maaro bàyyi nii bu émission bi jàllee damay cëpp de. Hmm. ñu ngi entraîné chaque jour. waaw di sant sama boy bi Yanda. mais yaa ngi waajal Koukandé ah? kunkaande ji moom laay xaar. ah xarat damay xaar mu xaar ko rek ma soog a dugg dëkk ba. ah kon yow kunkaande bu xaree yow da ngay dem nii la koy xare nii non man demuma de. ah demoo damay xaar mu xaar ko rek ma soog a dem. mais est-ce que am nga yaakaar war dina xar géej gi. ah loolu la wax de man nag dina ko xaar ak du ko xaar moom maa ngi xaar suur tam xarat. kon daal yaa ngi fii yow rendez-vous fii. déggoo li ma la wax fii laay toog xaar ko boo xam luy am. Ah. lu mën di am daal dinaa ko xam. mais Khadim Ndiaye nee na ngeen préparé seen i cours ak seen i liif yu baax yow da ngeen daal liif déggoo li ma la wax. di ngeen daal liif fii ma toog nii laay ah. toog xaar boo xam léegi su ko xarul nag yow Ah, bu ko xaroon moo xam mu xam mu xëj na moo wax lu mu defut rek. atia <laughs> euh, mais daal Fatima maa ngi sant daal ñu jàpp ci combat bi yëpp. Mm-hmm. waaw di sant sama booy bi yanda fu ne laa koy yónni sonn na ci waaw moom mii sama gars la source bourse mu ngi def ay prosam ñëpp xam nañu ko. di sant Cheikh Anta. Cheikh ba ku baax Cheikh waaw. ku baax ku mën a sonn ci gars yi sama xarit bi. di sant Walido ñoom Boursine. Mm. ñoom Sall Balagay sama waa écrit carrière ñoom mm. Safal Kewel numéro 2 Boursine 2. Mm, waaw di sant sama gars yi ne Castor ñoom Ablaye Sène Amet xam nga di sant Mor bu baax Patar Sène la nekk. moom it da ci jàpp bu baax. waa di sant Binta sama jigéen bu baax Medina. di ñaanal. waa Bawol gi yëpp xam nga mm-hmm, mm-hmm. jàmm di mm-hmm. ko ñaanal Medina di sant waa Medina bi yëpp ñoom ñëpp jàpp jàpp nañ ci combat bi son nañ ci waaw di sant Mbay ak Njagandit ñoom itam vraiment samay gaay la ñu xam nga mooy loolu Abu Jon maa ngi koy sant di sant Ablaye Sarr xam ñëpp maa ngi leen di sant ciy jàpp bu baax waaw jotaay làmb la woon ah jaw farama kon ni ma ko waxee rek sama caméraman bi yow dundal yow sa dund dafa am njariñ ci man ndax ndeysaan sama cameraman bu disponible bi su ma naraa acca rek nga ne acca te doo ci teg baat nga xamante ne lekkoon naanoo ndax man sonal naa la lool mais di la wax rek liggéey bi moom moo ko laaj maa lay kii maa ngi lay baaluwaat ak bu baax a baax dama laa amee ak dañuy coow xuloo mais dañuy ànd dañoo bëggante ndeysaan te mënul ñàkk liggéey noon la mais suñu PDG kenn du moom ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax muy Fallou Ndiaye borom Kewel Info ndax bu la neexoon nga defee neneen mais dangaa jël lépp nañu doxal leen sama yoon nekku si yàlla sa jàmm yàmm yàlla sa jàmm yàgg cant ak ñeel na leen kéwalee dañuy doxantuwaat rek dem xooliwaat beneen bër comme que ci Covid lañ nekk tamit doxantu aayut daal yéen a ñu a ñu jàpp rek dootoo ko defee. mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee